dafay baax ñu dëxëñ lépp comme ni niñ ko yàgg defee ci benn téere bu ndaw ngir mën a ñëwaat ci fànn yi benn par benn te liggéey bi du bind kese wax maanaam du bind rekk wax waaye dafa ànd ak ay preuve maanaam lépp lu ñu wax am na preuve moo tax bu ñu ko présenté di ngeen gis ni am na ay annex lu toll ci ñaar fukk ak ñaari annex te bu ngeen ci dem di ngeen fa fekk preuve yi muy wane na rek comme ni ko tur bi wuyoo maanaam leeral yépp ci li xew lépp moo tax dinañ leen dëttal déjà benn film boo xam ne mën nañ ne dayoon na sax pour retracer affaire yi wane li xew waaye document wu 36 page boo xamante ne nii aussi dafa relaté fait yépp ci ni mu demee euh, ñu xam ne donc li nga xam ne président Ousmane Sonko ak Pastef ñu ngi koy dund du lu bees comme nag léeg-léeg xew-xew yi dañuy bëri tegaloo ba nga xam ni mën na waral euh, ñu fàtte yu bëri mais ku seetaan yaakaar naa film bi di nga xam ni Pastef yàgg nañ koo xoñoñal yàgg nañ ko jéem a teg coono ci lu jiitu lii am na ay parti yoo xam ne sax daanaka dañ ko tëb ndax film ñëpp xam na ne dañ koy tënk huit minutes mënoo ci def lépp mais li am solo rek mooy dafay baax nit ñi comprendre tey mën a répondre ci benn question kan moo yore violence ak kan la ñuy violenter yaakaar naa ne ku seetaan lii di nga xam ne kenn ci àdduna musul gis Pastef jóg attaqué benn convoi benn responsable parti politique wala kenn koo xamante ne nii tey ràññee nañ ko ñu ne Pastef dafa jóg attaqué ko wala dara mësul am wala benn responsable Pastef dafa jóg teg naka su noonu ci kenn koo xamante ne nii responsable de l'autre côté la loolu nag li mu wane ne rek xëy na dinañu jéem a dëkkal fu ñu dëkkul waaye li am solo mooy tey euh, wedd gis bokk ci li leer mooy Pastef moom lañ teg coono mbokk yi lii yëpp nag président soo ko da ko dëxañ ci livre bi livre boo xam ne da ko jagleel balaa kenn sénégalais yi parce que comme ni mu ko yàgg a waxee ginnaaw yàlla ak yonante bi peuple bi la jox boppam donc askan wi mooy kiirlaayam lépp loo xam ne aussi ci xeex bi ñu sumb mu ngi ko ciy daj wala Pastef mu ngi ko ciy daj askan wi jar na ko moo tax suy bind askan wi lay njëkk a xalaat mu ni nag dafay baax ngir mbiri leer mu ñëw dëxëñ ay ponk yoo xam ne mën nañ koo wax ci ñeenti ponk ak i annexe ponk bi ci njëkk mooy liy waral manifestation massive ak populaire ponk bi nga xam ne boobu ci biir boobu la ñuy waxee complot politico judiciaire bi nga xam ne mooy affaire Prodac Mame Mbaye Niang ak affaire Sweet Beauté Adji Sarr waaye tamit traque ak persécution bi nga xam ne ñu ngi koy teg ci askan wi particulièrement ci militant wu euh, ak sympathisant wu Pastef wax na aussi ci forme ak bilan répression aveugle maanaam xeetu repression wala tëcc yi nga xam ne nguur gi mu ngi koy tëcc askanam ci luñ ko xameewul woon ci senegal ak bilan bi mu indi ak affaire milice yeeg nervi yi dem na ba tey mënatuñoo xam sax ñaata nit ñoo faatu après nag dafay am solo ndax loolu dafa indi ne senegal àdduna bi yëpp ko tëggat te gis ngeen des dizaines de réactions sur le plan international bi nga xam ne lii ay réew la lii ay personnalités yu ñëpp xam la lii ay organismes internationaux la yu daanaka yi ëpp solo Nations Unies ak yu ni mel loolu yëpp nag euh, dañ ko boole indi ay firnde daal di koy teg ci taabal ji laaj ne dañuy def benn enquête international boo xam ne ngir li xew yépp mën a leer yaakaar naa ne ñu bëri ci yéen dégg ngeen di Juan Branco di wax te ñu bëri jàpp ne xëy na bluff la walla dara waaye ñoom jàppuñu ko ndax gis ngeen tiitaange ci ñoom ndax liggéey bu sérieux la te incha allah le deux à 11h jeudi Juan Branco dina def conférence de presse internationale pour dugg ci biir dossier CPI bi ngeen xam fan la ci toll ak yan jéego lañ ci teg te loolu incha allahu rabbi euh, di ngeen ko mën a seetaan en direct sur nos plateformes mais aussi li ñu wax ni yépp nag dañ ko doxee ci li ñu wooye ay annexe 22 annexe mbokk yi yoo xam ni boo ci dugg parce que après dinañu partager lien bi fi nga xam ne di nga fa mën a télécharger document bi 36 pages waaye di nga mën a cliquer à partir ci lien boobu dugg ci annexe yi di xool benn par benn nu mu la neexee lépp lu ñu wax ñu ne la boo demee ci annexe nangam di nga fa fekk preuve loolu nag euh, mbokk yi moom lañ leen indiloon.